ala alihi wa sahbihi wala fala tahlamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ahyunin jazaan bima kaanu ya'malun maa ngi lay nuyu alaaji Sanjoogu di nuyu mboolem ñu ñu bokkal plateau bi ak ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di jiital ci nuyu bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride. Hmm. di nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke di nuyu euh, mboolem njabootuk Serigne Sidi Mokhtar gépp Serigne Modou Aïssa Mbacke ak ñoom Serigne Khadim Serigne. Euh, Abdou Samad Mbacke sëriñ Jili ak sëriñ Abdou Latif euh, ak sëriñ Saalihu ak mboolem njabootu sëñ bi yëpp. di hmm. nuyu bu baax tamit euh, sëriñ Ousmane jaawo ca Ñoora di mu xaddamu Cheikh Ibrahima Niass di nuyu bu baax tamit Cheikh Omar Thiam di koo xam ne keroog ci marché bi la xamante mu. Hmm. ñëw ca ba agsi ci man ne ma yaam ma tax a ñëw maa ngi koy mm. ziar bu baax moom Cheikh Omar Thiam moom nekk di kilifa diine nekk fii ci Colobane di njabootu Cheikh Ibrahima Niass mm. ak euh, mbooleem daal ku ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew jërëjëf Cheikh Fatmata Seye fa mu sëggee dafa teel sëgg masal jërëjëf Cheikh Baara Ndiaye waram def gis ñu daatee ñëw nag jublu ci li nga xamante ni bi moom mooy mbiri Cheikh Baara amal ngeen waat mars bi nga xamante ni bi moom nga taxawoon fii publicité waat ko keroog ah. mars ba bii yoon nu mu demee ndax yëf yi xam <laughs> na te dagan walla nan la yëf yi tëddee en tout cas moom. Ah. Euh, publicité nga ko fii ba pare. nu yëf ya demee euh, di santaat yàlla bu baax parce que mars boobu. dañ ko doon woote. Mhm. ngir détenu politique yi nekk ci réew mi. Mhm. muy tàmbalee ko ci Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye Xurum Xaq. Mhm. ak euh, Pape Ousmane Diagne. ak Papito Kara. waaw ak euh, ñoom Amidia ak mboolem ñi ñuy wooye ay force spéciales. Mm-hmm. ñu dem ba remarqué ne ñii daal état bi de leen a jàpp ci ak jaay doole. Mm-hmm. tey tëj bi day bëgg a yàgg. ñun mm-hmm. doomi Sénégal yi ñu génn ngir taxaw wane suñu naqar ci jàpp googu ñu jàpp jëmm yooyu. loolu nag euh, bi mooy ñaareelu yoon ñu di ko woote. te bi ñu ko wootee ak léegi tamit vraiment bii jàll moom bële sax waxoon nañ ne réew mi na mais bii jàll moom. dafa dafa passé réussir. Hmm. ndax mbooleem doomi Sénégal yëpp génn nañ ci. génn nañ waaw wax dëgg yàlla mbooloo mi hmm. bari na bari goo xamante ne man hmm. sax euh, bett na ma. parce que li koy wane mooy bari na ay leaders yu fa nekkoon yoo xam ne. gisante wuñ mënuñoo gisante dégg naa fa turu rek ku maam jaara faam ñoom Khadija Maye Koor. ñoom Guy Marius Sagna mais ba tey mënu ma ne ñooñu lii lañ sol parce que. dañu mbooloo mu bari mi moo ko waral fi ngay hmm. nekk ak fi ñuy nekk dangay dégg rek ci micro bi ñu naan diw mi ngi fi loolu nag day wane ne kon réussite u marché bi la te itam li gën a am solo mooy ay maire ak ay paa yu hmm. am yu yu màggat troisième as dañu faa hmm. bari woon lool ba léegi nag gaar woon naa leen ne woon naa leen paa yeeg maire yi duñ ñëw mars waaw waaye nag bii paa moom ñëw nañ vraiment léegi nag Macky Sall xam naa comme bu ñu dégluwut na déglu paa yi ak yi ñëw nañ ñu ne ngeen bàyyi nga bàyyi seen doom yi gis naa nag waaw euh, ci ndaje mii mu doon woote. waaw mu mel ne kuy justifié wu. muy justifié wu waaw wu parce que justifié wu gi weesuwul. Hmm. Euh, toog ci ndaje moo xam ne yow jàmmi Afrique ak sécurité ngay waxtaane nekk fa naan ay réseaux sociaux yi ko ci saaga ñu jàpp la nangam nangam defe naan loolu amu fa place hmm. te boo xoolee ci discours français bi nga xamante ne moom moo ko ñor waxu ko ci waxu ci lool ci dafa bàyyi bay wax discours olof hmm. di ko waxaale man nag damaa gis ne Euh, day justifié wu. justifié hmm. wu gi weesuwut. Hmm. maanaam tey ñim jàpp. mat nañ ñaar fukki nit ak juróom jàpp ci bala mu ëpp ko. waaw ñoom ñëpp plainte dugalu leen fa. li leen fa dugal mooy kii Macky Sall daa dem ci seen groupe WhatsApp di déglu group groupe WhatsApp bi ñi wax fay wax mu ne dama leen di jàpp parce que yéen a wax nangam ci groupe bi. Hmm. ñii daa dem ci seen page Facebook. fekk leen fa muy poto procureur bii rek. Euh, fekk fa ay ay ay ay reetaan ak ay ay kuy revue de presse di tooñ. ñeneen ñi ci des ay yaa wax yaa wax nangam diffusion fausse nouvelle la du diffusion fausse nouvelle nga jàpp amu ci maanaam ñoom ñëpp affaire u réseaux yu ñàkk fayda lañ leen jàppe hmm. loolu moo tax xam naa bi mu demee ba gis ne bañ indil ko document bi parce que dégg naa Alioune jox na ko tur yi mu xam naa day woo procureur ñu wax ko li ñuy def mu gis ne vraiment ñii defuñu dara hmm. léegi nag pour mu justifier ko nag mu bëgg wane ne booy yi dañoo saaga hmm. nekk fanaan dañoo saaga procureur nag moom vraiment man comprendre ma ko ah lu waaw koo xam ne yow dégg dégg naa jàkkee jumaay jumaay jumaay Baobab ji jumaay Baobab dañoo am problème mu cinq millions yu ñuy giiñante ci seen biir mhm. mu auto sesiro mhm. ci ay ay mbootaayog jàmbur waaw maam jàkkee jumaay jàmbur quoi kenn pelentiwut waaw nga ñëw di oto sesiro ñu xëyin suba ne Abdou Karim Sall ak Abdoulaye euh, Daouda Diallo dañ leen a tudd ci ay quarante nangam milliards mhm. surtout que loo xam ne ay arme la problème mu sécurité autosaisiru lu muy xaar <laughs> léegi nag cinq millions ci <laughs> jumaay jàmbur nga mën koy autosaisiru parce que daa am imam bu ñu fay tudd tudd Sonko doo nga moom lay wut fa la jëm mm-hmm. tey jii ñu wax ci biir république bi quarante nangam milliards yoo xamante ne ci insécurité réew mi la jëm mm-hmm. arm yooyu anamu bu dul mm-hmm. arme yi ana xaalis bi nan la demee dëgg dëgg ñi ko ciy déglu doo ko ci dégg mm. kon lii nag moom foo yoon ci réew mii maanaam loolu moom mosuma koo gis waaw dañuy foyee yoon wi dañuy fo parce que ñoom Macky Sall ñi ngi toog foofu naan ay jàmmi Afrique ak sécurité ñoom amuñu sécurité amuñu jàmm ñoom CEDEAO googu dajewoon foofu ah bon ah oui parce que bu ñu amoon sécurité hmm. Côte d'Ivoire ak Mali ñoo frontière oo waaw quarante cinq personnes ñoo nekk ci avion hmm. jógee Côte d'Ivoire naaw ñëw Mali hmm. ah, ah, ah, Assimi Goïta kidnappé leen téye nee ay force spéciale lañ waaw tey jii ñoom Macky Sall ñëpp ay ñoom ay ñoom Faure Gnassingbé Sall ñoom ñëpp dem nañ. waaw ku ne wax at euh, asimo bañ. Hmm. kon donc ñoom am wóolonte wuñ. amuñu jàmm ci seen biir amuñu sécurité ci seen biir. nit hmm. nag du joxe lu mu amul. dañuy bàyyi ba am jàmm ñoom doog ñëw tutal jàmm. <laughs> nit du joxe amul. waaw jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis <coughs> macha allah. Hmm. Euh, li nga wax noonu am na solo mais Cheikh Euh, tey da nga ne ma woon da am message mm. bu foor boo xam ne moom nga bëgg a lancer. Mm. Euh, paa yeeg maire yi xam naa ni ñoom Pa Diop ñu ngi ne tekk di la déglu. Mm. parce que bële passé bi nga leen fi dóoree message danga nga fi wane ne maire yi mënuñoo julli julli ki dañ koy lijjanti. loolu nga fi wax ak tamit paa bu ko xas ba nekk kilifa rek teel sa kii loolu loolu loo loolu mooy message bi nga dóoroon paa yeeg beer xam naa ni paa fi mu tiitati nañ. Mm. boo defoon daal sax at. tan nañoo zappé mais tey Cheikh Bara hmm. ban message nga bëgg ñëw ci paaye ak maire yi tey euh, paa moom buñ ñu bu ñu sappee tey moom <laughs> pa pa Sarr papa Xadi Sarr waaw ak pa Bari waaye Cheikh Diop mm-hmm. mm, Assane ba Assane ba Bargny ah mm-hmm. paa yi ñoom maire Diop maire Diop euh, bi nekk centenaire ak mm-hmm. maire cuuraay bu jàkkay laayeen waaw euh, maire Aram Niang waaw ak sama maire yi daal maire yi Touba ak maire yi France yi may seetaan maire yi compliqué yooyu maire yi France yi maire France yi dañoo compliqué <laughs> maire yi France yëpp a mm. <laughs> maa ngi leen di nuyu bu baax léegi nag mm. li ma bëggoon a wax rek tey mooy dama bëggoon tey moom waxuma benn xale bu góor li may wax mooy suñu maam yi ak suñu yaay yi ak suñu papa yi laa bëgg a waxal ñoom ngay waxal li may wax ak ñoom tamit mm. suñu réew mii la jëm muy réew mii ñu bokk dëkke muy Sénégal dañ fee nekk daan keñ nit ci njàmbaar daan ko keñ ci gore daan ko mm-hmm. keñ ci jikko waaw amul benn nit boo xam ne ñun judd nañ fekk ñu di ko naw te fekk ne alal lañ ko nawe mm-hmm. du Ahmadou Bamba mm-hmm. du Baye ñas du Alaaji Abdoulaye du maam Ousmane du sëñ Alaaji Malick du maam Imaamu Laay du kenn ku ñuy naw ci réew mi koo xam ne dañ naan an lam yoroon ci xaalis du Cheikh Omar Foutiou lañ daa nawee nit ci ñun mooy nit koo xam ne dafa am Mm-hmm. am jom am ngor mm-hmm. nawuñu Lat Joor ci xaalis mm-hmm. nawuñu Buur Siin ci xaalis nawuñu Maba Jaxu ci xaalis nawuñu ko ci Ndate Yàlla Jóob nawuñu ko ci baraag baraag baraag baraagi waalo ya kon nag bu ñu demee ba réew mi tey ñu am lu ñu fi gis loo xam ne maanaam kenn bëggu koo def ci réew mi ku dul njiitum réew mi ko jiite ci boppam te dafa mel ne ñun bu ñu amee am réew léeg-léeg tubaab yi dañuy ñëw laxasu ci ak lobby yi laxasu ci ne fexeel ba réew mii kat luñ mën a def na góor jigéen gën a yomb naanum sàngara mi gën a yomb wala nañ fexe ba kart euh, euh, mi gën a bari wala nañ fexe ba fecc mi ak fom yi gën a bari. Mhm. suñ jiitum réew mii nag man damaa gis ne dafay promouvoir. Ah. maanaam wax muy dañ. wax muy dañ waaw wax nit wax maanaam wax ja dañ. ah loolu foofu promouvoir li ma bëggoon wax ak suñ bàyyi mooy réew mii. Mhm. dañoo bëgg a jël li ñuy wax sama baat jiitu sama kàddu jiitu na ma. waaw ñu indi ko ba ci pénc mi ñu ne ko deqat rendi. Hmm? ñun nag réew lañ moo xam ne mën nañoo ñàkk lu ne. waaye kàddu moom ak hmm. gor. Mm-hmm. am nañ ko mm-hmm. dañoo dañoo bëgg a indi nag ci réew mii mm-hmm. maanaam sama baat sama kàddu kat jiitu na ma waaw ñu tër ko ci réew mi ne ko teqat ren di lu tax nga wax gis nga sanjoogu bari na sëy yu am ci réew mii waaw ñëpp ñu bari defoon xamoon nañ ne sëy bi du nangamut waaye nag kàddu da caa jiitu ba noppi moo tax kenn mënu ko woon a dindi am na paa yu nekk ci réew mii waaw bu seen doom jóge woon seenub jarbaat jóge woon ca daara ja ne aman ah, kat léegi jóge naa daara ja jàngi naa ba ñëw damay jàngi tailleur waaye bu ma jàngee tailleur ba ñëw sama doom yi bàjjen ji dama koo bëgg mhm. ba mu ne la paa bi ne la baa baax na boo ci tollee ñu def ko mhm. bu Sadio Mané ñëwoon indi milliard ak balon d'or yeeg lépp jaay ko ñëw bëgg a détourner paa bi ci li mu waxoon dafa mhm. naan sama kàddu jiitu na ma sama kàddu jiitu na ma googu nag maanaam dafa bokk ci loo xam ne moo ëmb senegal waaw ñun fii koo fi waxoon ne ko génneel sa certificat de mariage su bàyyeeg sa sa bàyyeeg sa yaay du ko génne ñun ab sëy daw ñu ko def ci këyit ci kàddu lañ koy def waaw ab bor fii hmm. koo fii waxanteel ci xaalis mu génne këyit naa la defal décharge xamal nga ne dëkkut ci réew mi hmm. ñun lebal da ngay wax kàddu ñu wóolu la lebal la nga bàyyi fa sa kàddu te kàddu doy doy la nga mu fay hmm. suuf yii ñu séddoo depuis mill huit cent mille cent mille sept cent suuf yooyu benn suuf bu jo boo ciy génne këyit amul kàddu rek fii la saw digg yem fii la sama digg yem ñu yem ci suñ demee nag ba toll ci réew mi ñu bëgg rey kàddu maanaam paa ak maire yi bëgg naa leen a yëgal nañ su njiitum réew mi daa bëgg rey kàddu rend kàddu ah bon waaw ko tàmbalee mooy waaw moom ci jëmmi boppam waaw daf koy def nu mu ko neexee waaye damay njëkk ñëw ci ni mu koy defee nit ñi mooy Ablaye Mbaye Peex rek bàyyiwu ko njëkk na Ablaye Mbaye Peex taxaw na fi ne du ma mës a bàyyi Ablaye Wade waaw man ma nee na ko ba mu bàyyi ko hmm. sa sekk taxaw na ci penc mii daal ne man Idrissa Seck xas naa ne hmm. du ma mës a bàyyi du ma mës a dem ñi may falee décret waaw mu fekk ko perek teg ko perection xaalis ak nguur Hmm. ba ba ba ba ba ba rey ba indi la Idriss Seck xasoon ci penc mi ne ko teqat rendi waaw fal ko ci dekkare ñu gis na Idriss Seck la mu waxoon lépp dañ na ja hmm. Moussa si wax mu def ko ko waaw bag boo faal mii dëkk mi Medina wax bag boo mu def ko ko <laughs> Aïssata Tall Sall waaw mu def ko ko waaw dégg nga ma. Souleymane Souleymane nee na Ndiaye taxaw ci pénc mi ne képp man bu ma àndeek Macky Sall dañ ma nañ ma fetal. waaw mu man mënee ko ba jël ko anti. Mm-hmm. ak ku gor su mën a wax ci réew mii. Mm-hmm. dana la mën mënee ba jëlee la ca waxi gor ja nga waxoon. Mm-hmm. nga nga ñëpp xam ne yow mii yow kilifa diw yow mii yaa wax tey dañ na. mi ngi nii. ñi daal di lay moom mu doog a nangoo ànd ak yow ba ci ñoom Mamour Diallo mi muy recruté yëpp nit ñi hmm. nga xam ne dafa mel ne société bi dañ leen a goxi rek waaw ci ay mbir lay dajalewaat moom hmm. moom ci jëmi boppam mu dëkk ci nag waaw ba muy taxaw fi naan damay wàññi luyaas bi xamoon na ne ab luyaas mënu koo wàññi waaw te teewul mu ko doon dig sénégalais yi digalu ko digalum narut hmm. ba mu taxawee fii naan mandat bii ñu ma fal ci cinq dama koy dindi sept dama koy wàññi mu ñëw ci cinq ans Macky nekk na député nekk na maanaam nekk na maire. nekk ministre. waaw nekk ministre de intérieur. waaw nekk premier ministre. Mhm. nekk président assemblée nekk président de la république. Mhm. kon faloo falli ko moom lu ko ci réer amut. déedéet ba muy taxaw naan sénégale yi dinaa ko wàññi ba muy set set yi dinaa ko wàññi ba muy cinq. Mhm. xamoon na ne mënu ko te ba mu koy waxit naru ko. waaye bëggoon a wan nit ñi ne doon kilifa du tee wax dara ba yàgg nga xëy génn ca. loolu dong la doon promouvoir. tey jii nag taxaw na fépp ci réew mi. waaw joxe kàddoom ne. ma maanaam mandat 2019 bii may falo bu ma ci falo pare naa ci réew mi. waaw réew mi bëgguma sax nit kuy wax ak man di wax waxi ay falo troisième mandat. Mm-hmm. dégg nga. waaw dama bëgg yooyu nit ñi yemale ko fële man nekkuma ci wax jooju. Mm-hmm. boogul yemu ca ci lu tolloog fukki at ci gannaaw àndoon naag suñuy ndaw ñu xeex ba fukki nit ak ñaar dee. ngir doon taxaw ne Sénégal kat waruñu fee seetaan koy def troisième mandat. waaw waxi gor jooja mu waxoon. Mm-hmm. la bëgg a xëyaat indi ko ci réew mi. ne ko teqet rendi hmm. du benn nag du benn buuju ko def du benn waaye bu yor fële ab ab burwetam di puus wala yor saakoom di di di roñ gerte wala yooyu. Hmm. président de la république bi nga xam ne. mooy kilifa gi féete kaw ñëpp ci réew mi. mooy hmm. jàkkaarloog waa réew mi wax tey. weddi suba. loolu nag bu ko defee. maanaam kàddu moo dee ci réew mi. kaddu bu dee nag ñun boo ñu reyee kàddu gii ñu yor. nga xam ne kenn ku ne as gor nga. soo reyee sunu kàddu boo defee reyee teer ak ber ko ndax danga noo rey ba noppi. ndax ku ku dindi suñu kàddu yi ba suñ waaw ak suñ déet du dara bàyyeetoo ñu dara te nag mu àgg ci ñooñu muy jàpp di leen wax loo waxi démb ma gis ci ku ma jaaxal nag koo xam ne loolu moom mhm. danga may may ma wax ko mooy Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall waaw Ismaïla Madior dafa tudd Ismaïla waaw sant faal ba dolli ca maajoor kon nga kon nga yëg ne ca faali maajoor la bokk ca faali maajoor faali maajoor nag bu ñu ko waxee ñun mm. réew mi daa am lu ñu maam jàngaloon mm. ñaar rek a mën a nekk nag mm. mooy li ñu maam jàngaloon juum am na ci waaw wala ismaila mi faalam gi sikk am na ci sikk waaw waaw maa ko wax ah. xam nga lu tax ah, li may wax lu leer la ñëwal faal ca yaasin waaw faal ca ndeela mm-hmm. faali maajoor waaw muy faali dettu fu njóogoog amari ngoone sabel mm-hmm. birima ngoone latir birima fatim cub mm-hmm. dégg ma faal yooyu. Mhm. muy faal piir nga xam ne ay dammel lañ. nga xam ne dammel lañ. ca la Sidi Baara Fall mii di ànd ak Mimi Touré bokk. ak mhm. faaluk ñoom général Moussa Fall mii. Mhm. ak faal yi ñoom Bis Fall Maajoor. mii ci Maris. ak faal yi ñoom ca Ndeela Fall. ñooñu. dañoo xamoon ci ñoom. diiñ. diiñ de sincère. am fit ba noppi duñu wax di waxee. di wax loolooy lu wér. damel Samba Yaaya Fall waaw tubaab bi da ko woolu mu dem Ndar maami maami Ismaïla Madior Fall mii la maami Ismaïla waaw waaw na ma déglu moom maamam Ismaïla Madior Ismaïla déglu tubaab a ko woo ca Ndar mm. ne ko seet si fekk si ma mu ñëw mm. fekk si tubaab bi am fay fan waaw nit fekk ko fa ne ko ne ko damel Samba Yaaya de sa yaay ga faatu na mm-hmm. mu daal ne ah kon de nag nañ takk fas wi te daal di jubali Kajoor ndax mm-hmm. loola moom mat naa dem mm-hmm. ñu ne ko déet mu ne bërit bëgg dem ñu ne ko déet yow da ngaa nekk ci résidence dañ naa nekk ci ci garde à vue Mhm. tubaab bee la fi téye woon pour am lu muy enquête ci yow. waaw mu ne man tubaab bi moo ma téye fii ma toog kon ndekk gi ma nekk ndar do ci sama sagas bopp. waaw ñu ne ko déedéet tubaab ba la fi téye de. Mhm. mu ne man góor du ma yendal fenn. Hmm. ca bëccëg googee. waaw daa dem ba ca dexuk ndar ga mu ne ca dagg dugg ca la faatu. ca la faatu waaw waaw. doomam ju ñuy wax jéeri joor ndee la mhm. keroog ba ko tubaab bi wooloo ne ko jéeri da ngaa jaayob jàmm mu ne ko waaw mu ne ko kon nag yoon da laa teg ñaar fukki fan yi la war a téye fii ci kaso bi parce que loolu loolu dañ koy def ngir xupp yeneen dammeel li ci des mu ne ko seetal sama alal loola ci neex nga xaaj ko jël ko bu la neexee wala nga jël lépp mhm. waaye man damaa bokk ci giir goo xam ne moomu ma ñi may téye ci barab ñaar fukki fan man du ma góor du ma yendal fen mhm. tubaab ba commanda sa temps dëgër bopp mu ne roccet paaka ne ko ko dabax mu faatu moom tubaab mhm. keroog ba mu ko jamee génn yi ñibbi bëgg ñett ñettal escalier yi géwal ba da ko ne def dox ko ndànk par benn par benn ndax bu ëllëgee bu may nettali mbir mi mhm. su ma nee da ko doon ñett ñettal day yàq way wi dañ naan da doon daw waaw muy benn bennal escalier yi ñoo ñooy imaam Ismaïla maajoor Fall mhm. ñoo ñu mhm. Lat Joor Jóob ma nga xam ne ndeyam a sant faal mu bokk ca Ngóone Latiir Fall di ndeyam keroog ba mu ñëwee ci kanamu sëñ Tuubaa waaw Tuubaa ne ko li ngay wuti doo ci am ndam toogal fii ma defal lu ko gën da ko ne xam naa ko te gëm naa ne man nga ko waaye sama kaddu damaa jiito ca Kajoor ba noppi te du ma deltu gannaaw ci sama kaddu ñooñu musuma cee gis nit ku sincère wul. Mhm. musuma cee gis kuy wax di waqet. waaw sii di ya ndata yàlla. waaw doomi ndata yàlla mbooj. Mhm. dafa ñëw ci dafa ànd ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, Buna Albureek ñooñu. waaw ay ñoom mbaaxaan ak doomi bur yi. waaw ñu def ak feet ñëpp ñëw toog mu ñëw toog. sol costim ndax moom dañ koo joxoon tubaab bi mu adapté ko. Mhm. ba mu ñëwee géwël ba ñëw taxaw di way ñëpp di ko romb. Mm-hmm. mu toog ba yàgg mu jóg taxaw ne géwél bi eh yow lu tax nga way sama nawle yëpp wayoo ma mm-hmm. géwél bi na ko ah yow kat yaa fi ñëw sol yére tubaab ñii ñëpp dañoo sol li seeni maam daan sol mm-hmm. yow nag da ngaa mel ne ku xeeb sa maam moo tax ma xeeb la bàyyi la bañ laa way mu ne ko ah kon man colog tubaab gi ma solo tax wayoo ma mu ne ko waaw mu daal di summi yére yi dem ba ca dex ga mu sangu ba set ne dootuma làkki tubaab léwon gi ma tubaab bi tudde woon dindi naa ko bis naka tey sii di yandata yàlla laa tudd dal di soppali ko ab résistant di xeex ak tubaab yi xeex bu metti fu ne Mhm. bañ jàpp ko yóbbu ko Gabon mhm. keroog ba mu bëggee ñibbisi tubaab bi compliquer ñibbisi ko daa soqi fetal dóor ko fii daal di faatu mhm. ñooñu duñu nit ñoo xamante ne dañuy taxaw ci pénc waaw nga bokk ci ñoom ne sa dareet dareeti dareeti faali maajoor la nga taxaw yow Ismaïla taxaw ci pénc mii waaw wax dara ne maa ko wax ñi xëy suba ne la Ismaïla waxaat ko teg faluk àdduna dong ci sa kanam waaw ngay nakka nakkal loolu moom man xawma loolu ci ah. xawma loolu ci ko sant Fall xawma loolu ci ko sant Fall waaw ah, xawma ko tax na réew mi nag ab takk dafee am de mm-hmm, waaw waaw gis nga Fall waaw ak Jóob mm. ak Njaay ak mm, Gajaga sant woo fi jël ba ci mbeng sant woo fi jël ci biir sant woo fi jël waaw léeg nga gis nit di mm-hmm. def dara nga defee ne tay la fekk du tay démb la dëgg la gis nga képp kuñ na la Jóob la sant mm-hmm. mën naa mën naa mën naa mën naa fonk kóllëre du bari caaxaan mm. dégg nga ma. Hmm. day day fonk kóllëre te du bari caaxaan. Hmm, ñu ngi nuyu Pape moom ko sant Diop. Hmm, waaw xam nga njóobeen piir laa wax nag ca Kajoor. gis nga Moussa Fall mi ngay gis général Moussa Fall mi wala Sidi Bara Fall. wala ñi ma wax nii. gis nga Moussa Fall bu taxawoon ci penc mii ne suba damay dee. billaahi demal jëndiw nag suba day dee. ah bon waaw waaw loolu loolu. loolu takk la bu ñu am bu yàgg. man bu ca nit bokkee. waaw taxaw ci penc mii moom Ismaïla Madior Fall. waaw. ne maa wax lii man Ismaayla ba dolli ca maajoor bay yegg ca faal ji waaw ñu dox tuuti ñu jël faluk àdduna dong teg ko ci sa kanam waaw sam say maam bakkana daan tegu ci seen kanam dee ñu jox ñu ne sama kàddu du dañ baal ma dee waaw yow nga wax ñu jël faluk àdduna goo xam ne mën naa am sax lu def juróom benn weer teg ko ci sa kanam waaw ne la Ismaayla waxal la nga waxoon ngay nakk nakal ndax bëgg a falu waaw boo dee faalit bu dindil maajoor ji moom maajoor na dañ waaw déedéet la waaw Macky Sall na xam ne am na juróom benn fukki at ak ñett. Macky Sall ah, waaw waaw 63 ans. Ah, kon mag la di. Macky Sall bu ñuulal jeexoon ci réew mi dootu am karaw bu ñuul moom. Euh, day ñuulal rek waaye déet ba weex na tal. maa la ko Macky waaw waaw bu ñuulal dafa ñuul de. dafay ñuulal. day ñuulal 63 ans koy ko am di am karaw gu weex. day ñuulal day nax nit ñi rek. day ñuulal gis nga nag fii magum juróom benn fukki at ak nangam. Mhm. du fi wax ci Sénégal gii ñu koy nakk mhm. rawati na nag fa mu dëkk. Mhm. le plus digne que séeréer n'existe pas Cheikh Bara nga ca tubaab ya yaa ngi may dégg Cheikh Bara nga ca tubaab ya ay ñëwal le pili diñ ko séeréer waaw n'existe pas n'existe pas fen mhm. jékkut ci kenn waaw waaye rawatina séeréer mhm. jékkut ci séeréer waaye rawatina magum séeréer gis nga lii tax nit di fen muy bëgg a dund ak am bëgg-bëgg séeréer amul bëgg ak bëgg àdduna eggu ko fu muy fene mhm. gis nga bu yaakaaree ne waa Fatick géemu dëkk waaw da leen a jënd da leen a gerba lu mu woote ñu fekk ko ca déet déet ah dafa juddoo woote dara ñu war koo jàppale di ko jàppale mhm. waaye gis nga magum séeréer waaw bis boo taxawee yow itam war askan wi mhm. ba noppi ne ko kaay topp ma ci war gi ma war nit ñi mhm. dana xam ne jëndut séeréer si moomu leen yilifu leen wallahi asim bis bu taxawee dañ ne mënu ko sañu ko waaye bis bu wanee ne sañ na ko te ñeme na ko waaw ba taxaw fii ne maa waxoon lii ñu ne waaw mu ne maa leen war maa waqet bu ñu organisé woon élection yi ne fu malaat ak Macky sàll la te waa Fatick doo ngay wate Macky Sall dana ko ñàkk dana ko ñàkk man maa la ko wax. Hmm? li ci suñ kanam rawati bët. jërëjëf. Hmm. Cheikh Bara kon message bi nga xam ne moom nga doon jàllale paa yi dafa mel ni ñi ci gisaale seen bopp bari na tey déedéet jëngu na macha allah ba nga laalee ba dugg ca mbengeen loolu dafa nekk loo xamante ne bi Cheikh Bara macha allah yëngal na Cheikh Bara <clears throat> ñu ñëw ci beneen point point bi nga xamante ne bi moom la yor Diouf Sarr. Hmm. Diouf Sarr mi nga xamante ni bii jamono jiñ toll ni ab taxawaayam daal man jaaxal na ma tey ñu naan Diouf Sarr nga naan ne suba ñu naan Diouf Sarr noo jàngatee Diouf Sarr ci boppam. waaw tey dégg naa ci rajo bi ñu naan ñaari Abdou yi mooy Abdou Karim ak Abdou Abdoulaye Daouda Diallo waaye ma ne leen ñetti Abdou la kon. Hmm, ndax xool ngeen ci Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr. Hmm. <laughs> kon mooy ñetti Abdou yi <coughs> Diouf Sarr nag. Mm-hmm. problème am dafa xaw a compliqué mooy information bi gis naa ne ñu bari amuñu ko. Ah. moo tax mënuñu koo analyser. information Diouf Sarr dafa nekk ci ñaari combat muy ban ak ban combat bu njëkk bi mooy uh-huh. day combat ak sàll ci boppam moom Diouf Sarr waaw mm, combat ci naka Sall daa mënut a fay yu di yónni Mame Mbaye ah. dafay combat ak Macky beneen combat bi ci des mook Amadou Baye boo gisee mu defar mouvement waaw daan bu makki soxlaa soxlawuñ waaye bu soxlawuñ nag am nañ soxla waaw mooy dafa defee ne Macky Sall Amadou Ba la bëgg a yóbbu ah. muy pare guerre ak moom saa bu ñu ne Amadou Baye jiitu rek day génn Hmm. ak mouvement day génn soo gisee nag mu defar mouvement ba noppi bàyyi bañ installé député gi ba mu téye ci député gu dëgër waaw daal di tàmbali nag joxar bi Macky Sall hmm. daa am lu ko naqari parce que Abdoulaye Diouf Sarr dafa gëm ne Macky Sall da koo wor ah ci naka te Macky Sall da koo wor ni mu ko waree mooy hmm. waa APR yëpp dañoo jàpp ne Diouf Sarr daa sàcc xaalis léegi nii bi mu waxee sax ku koy tontu daanaka Diouf Sarr ana xaalis Covid bi boo seetloo APR gépp loolu lañ koy wax waaw Macky dafa jàngat ndakaaru xam ne da koy perte loolu waxoon naa ko bu yàgg bi mu ko jàngatee xam ne da koy perte mu jàpp dato élection yi Mame Mbaye Niang moo njëkk a xam. Hmm. Ablaye Ablaye Diouf Sarr dato élection yi. Ah am na benn bis ma toog fii ne la Mame Mbaye Niang ma gis muy wax de xam na kañ la élection yi waxagu ko nag. Hmm. ba ma gisoon soxna yi benn bis mi ngi naan Cheikh Bara waxoon na fi loolu. waaw Mame xam na dato élection yi te Diouf Sarr xamu ko. Hmm. ñu ñëw Diouf saar Macky Sall def ko candidat Dakar ba noppi joxu ko 1000 francs joxu ko 1000 benn 1000 francs Ablaye Diouf Sarr Macky Sall joxu ko ko APR joxuñoo ko. bàyyi koog boppam. ñu ne déet na waay matérielu sonorisation ak matériel bi APR am. tam nekk Ndakaaru waaw ñu jël ko jox ko Farba Ngom mu yóbbu ko fa Fuuta ñu tey ñu tey campagne. mu mënoon ko bàyyi riiti rek. ñu yóbbu ko Fuuta mu campagne. yaa ngi léegi nga xam nga ne booba gañ Ndakaaru. gañu a Fuuta ak mm. gën a jafe ñu jël matériel APR bi yóbbu ko Fuuta. Mm-hmm. Diouf Sarr am problème mu sax ay matériel yu yu yu yu politique. Mm-hmm. yooyu yëpp Diouf Sarr gis ko. mu perte. Mm-hmm. élection yi ba pare nag jël Mame Mbaye Niang. waaw roofaat ko ndakaaru def ko liste parallèle mhm. muy campagne xaalis mhm. encore Macky Sall ñëwaat mayaat doole Mambay daan ne am na liste parallèle yoo xam ne d'accord naa ci mhm. kon ah, donc may nga liste may nga liste limité Mambay waaw ñu dem ci léegi nag Mambay sonal Diouf saar ba ñëw ñoom ñaar ñëpp ñu bokk perte waaw Diouf Sarr dafa règle dafa respecté woon règlement parti bi Mambay ñaa jalgati règlement parti Macky Sall jël Mambay ñaa promouvoir ko jox ko ministre dàq Diouf Sarr d'accord kon ba pare Amadou Ba ñoom ñaar ñoo bokkoon perte gi ñu fal ko premier ministre mm-hmm. ak ñu bari ñoo xam ne dañoo pertoon ñu fal ko dàq Diouf saar waaw ba pare dàq gi tamit Diouf saar dafa gis ne mm-hmm. daf doon négocier ak indien yi ci problème mu la daan teg bañ sori waaw ñu jékki-jékki dàq ko le 26 mai mm-hmm. avant mois de juin bi di jeex ñu daal di lancé beneen projet ci affaire la daan teg mu gis ne kon nañ ko dàq pour naax naax saayal projet pour mën a teg projet jaay suuf si waaw dégg nga loolu la Diouf Sarr gis Mhm. Mame Mbaye Niang nag tontu na Diouf Sarr tontu loo xam ne mat naa bàyyi xel mhm. nee na ko mhm. ba nuy xeex ak Karim Wade da xeexut ba nuy xeex ak Khalifa Sall xeexoo tey ñi ngi xeex ak Sonko xeexoo kon man damaa jàppoon ne xalifa sàll dañoo waxoon ne yoon la amal affaire waaw ndeke kon waa APR la loon xeexal waaw Karim Wade ñu ne woon yoon la amal affaire. Mhm. ndeke yoo waa APR la doon jotel tey Sonko dañ ne yoon la amal affaire. waaw Mame Mbaye Niang nag nee na ñoom waa APR lay xeexal. ndax moo ne ko yow ba ñuy xeex ak ma Karim xeexoo. Mhm. ba ñuy xeex ak Khalifa xeexoo tey bi ñuy xeex ak Sonko ma def mhm. ma jàppoon ne nag kon Sonko amut ak problème. waa sistis waaye kon waa APR la la joteel loolu moom dégg naa ko ci waxi Mambay te Mambay ko wax léegi nag génnug Diouf Sarr gi day annoncé benn affaire mooy Benno Bokk Yaakaar tas na kooku moom maa la ko jox fii lu kañ la tas tas na Macky Sall xam na ko. Hmm. jot na af avis yëpp ba xam ne ñii dañuy dem. Hmm. gis nga ñu baree bari fii ci pa ci kii bi dañuy dem seen yoon. Ah Macky Sall li leen dem loo ko wax parce que information bu nëbbu la. Hmm. waaye li wóor te wér mooy. xam ne APR ah, ah, xam ne bennoo tas na moo tax mu gaaw daat ne léegi APR. waaw jaayal leen ma 1 million 500 cartes. 1 million bu affaire bi ne mbëll. Mm-hmm. ñu naan waaw léegi nag kon affaire ba yàqu na ndax bennoo tas na mu ne man sama parti jaay nañ un million cinq cent carte mm-hmm. pour wéeru ci parteem waaw moo tax dafa xam ne bennoo ngi tas d'accord yaa ngi may dégg mm-hmm. léegi noonu la demee léegi nag euh, maanaam bu fekkonte ne temps normal la danaan danaan danaan danaan danaan waa bennoo jaay leen carte yi waaye li tax mu rocc mu rocc APR ci biir bennoo moo lay wax ne tas dikk na tam tas na moom li koy tas moom xam naa ko tas na day tas parce que parti yi dañuy tasaaroo léegi ku mel ne Moustapha Niass. waaw dafa d'accord dafa bëgg a wane ne moom d'accord ci troisième mandat buy dem. Hmm. loolu lay wax fekk déedéet. Hmm. lan la ma Moustapha Niass Macky Sall da koo nax tam xam ko comme ni mu def Diouf Sarr. da koo nax fii ne AFP ba AFP daj am maire amu fa. amuñu maire amuñu benn maire. Hmm. waaw Macky Sall dafa jël ay liste parallèle fexe ba fu maire AFP ne ko mu roof ko fa. mu roof fa mu roof fa benn waaye nga nangu maire bi ba noppi duggaat APR. maire bi yëpp APR nangu na ko. mbay joon fu mu ñu ne déet na waay xaaral ma ñëw rek. waaw waaw. Euh, député gi ñëw. waaw ñaari député la AFP am. ñaari député ñaar. Mhm. ñu ñëw ci ministère gi Macky Sall bëgg Aliou Sarr. waaw bi bi bu bu bu bu kii bu nu mu tuddati waay euh, bi dëkk nu mu tuddati waay xaw ma boori camp boori dëkk séeréer yi. Mhm. nooto nooto Jobaas. waaw Aliou Sarr euh, kii nu mu tuddati Moustapha Niass dafa bëggoon Aliou Sarr nekk ministre. ministre daal di jël parti bi. Mhm. Macky Sall ne ah kon Moustapha Niass dafa bëgg. Euh, dafa bëgg kii dafa bëgg sawaay bu faloo nekk ne jiite ko. Mhm. day bañ AFP tànnal seen bopp njiit. Mhm. dafa bëgg a rey AFP pour tànnal ko njiit tànn njiit lu jigéen wala njiit loo xam ne du man dara. léegi nag Moussa daal di lànk boo gisee bureau ministre bi keroog bi ñu ko waree génne kayit wi. mu bari mu lànkoon Moustapha Niass da doon teg pression pour ñu def Aliou Sarr ministre. ñu ñu lànk jël jël am ji dëkk fii nu mu tuddati Euh, ki dëkk fii. ki dëkk fa nga xam ne gañewut dara. kan ci tuddoon nga ko fii léegi. Mbaye Dione Mbaye Dione la xaw ma. waaw moom lañu def ministre n'est-ce pas ministre de euh, pêche. gañewut fenn ba noppi mu dem jëli ko teg ko. ba <laughs> ki gañe mu wàcc ko fa. Hmm. noonu la demee. d'accord loolu moom tasuk APR naan tasuk. AFP Benno Bokk Yaakaar moom. loolu moom leer na. léegi nag APR ndax moom dana mën a maintenir ak Macky Sall wala déet. Hmm. loolu moom moo am. d'accord Cheikh Bara defe naa ni temps bi euh, jot nañu de Cheikh Bara euh, commissaire Kayta de am na lum la bomb yow euh, ginnaaw bi ma jëlee sama wàll defe naa ni Walf jël wàllam. yow it am na lum la yéen ñëpp man la doon waxal ah. man la doon waxal bombaale leen ci. ah dañoo bombaale. waaye man mais yow yaay kii man man man baal naa ko sincèrement nag. laa wax hmm. quoi baal nga ko. waaw wallaay du ma ko tontu. Hmm, lu tax te li may wax naqariwu ma. Hmm. waaw parce que xam naa li tax daal. lu tax non xam nga. am yoo xam ko dee wax nit ki sax day benn da ngay fayoog yooyu xam mm. bu fekkee xam nga ko maanaam boo bu nekkee xam nga ci moom tuuti da ngay man dama jàpp ne dafa am dafa tërëm dafa tërë dafa dafa am li ñuy wax traumatisme maanaam traumatisme waaw commissaire wérut non dafa non du ma ko daal waaye dafa dafa am lu ko perturbé dafa jaxasoo quoi dafa am perturbation ah, waaw commissaire soxna am dafa gaañu mm. soxna si gaañu gi dafa gaaw maanaam tey la nekk ci xew yi suba rek mu daal di faatu waaw loolu dafa metti Mm-hmm. soxna dafa jege doomu aadama te ngi soo rawatina ngeen njaboot. Mm-hmm. ñu jóge ci loolu yàggatul. mu am problème mu dàqam boobu. dàq bi bu nekkul dàq nii mais dañ ci tudd ay doroog tuuma laale la ay leneen ak leneen journaliste yi jot ci ci mag. nga am mm-hmm. njaboot. loolu tamit dafay nekk loo xam ne. maanaam même bu fekkee nag defoo ko comme ni mu waxee ne moom defu ko. bu ko loolu dafa metti day metti soo ko boolee li sox li ko dal ci soxna si noonu. ak li ko dal ci dàq gi. loolu ci mag. waaw maanaam mën na laa indil traumatisme parce que hmm. commissaire ni muy waxee ak mer mi ak ni muy dalee ci kaw nit ñi man jàpp naa ne hmm. maanaam du tayif tayif man loolu laa jàpp d'accord tey lu ma mën a wax man garaawul quoi baal ko voilà man ay njabootam laay ñaan ñu encadré ko hmm, bañ koo bàyyi ci journaliste yi ñu koy topp di ko laaj lu nekk muy wax wax nañ ko yóbbu fële ca caaro yi am na loolu moom du ko ko wax quoi garaaw est-ce que doo ko recevoir ci lundi yi xool ba xam ndax amut non nañu waxtaan ak moom rek nañu waxtaan jërëjëf Cheikh waxtu wi nag daal dinay jot joxeel programme bi rapidement parce que waxtu wi jot na léegi programme bi mooy tax suba insha allahu taala suba danañ dem dañuy nekk Tëngéej sama kër foofu cité Sëñ Mansour terminus su 48 mhm. mooy boori kër Pape Ndiaye coppet mhm. boo ñëwee nga taxaw foofu daal di laajte kër sëñ Baara Ndiaye danañ la ko wan mhm. euh, nabar al te ñu ngi asalem 2 ginnaaw école Madieye Sall. waaw suba ak samedi ak dimanche dinañ faj. hémorroïde mooy seere ballottement mm. yaram buy tàng bopp bi metti ndigg luy metti ngóora. waaw affaire sangat affaire jaaro affaire ndomba affaire mm. sangat ubbiku bayre yooyu yëpp daal. Mm-hmm. lëndi nag moom duñ ci faj yooyu yëpp rab rek la ñuy faj. rab waaw maanaam rab ak nu mu mën a demee nag. Mm. moo xam da teg ay wéradi wala mu teelaa am doom wala mu téye sa ngóora wala mu laa am wërsëg wala loo liggéey mu yàq ko wala ngay gént di sëy wala mu lay naqari loo deret lu lu mën a doon boo ñëwee ci benn bis bu soobee yàlla danañ ko faj mm-hmm. programme la nag mooy da ngay téléphoné nga wax ne damaa bëgg a faju rab ñu jox la rendez-vous boo mm-hmm. xam ne da ngay ñëw ñu faj